jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaay yu xibaar yi ñu fesal boppi euh, xibaar yi kuréel gi ñu xamee si Catholic Relief euh, Service ñoom nag daal dinañ nag jël nag ap ndimbal di ay nag jumtuwaay daal di ko jébal kër gi ñu xamee si di National Food Laboratory Service daal pour rek yombalal leen seen nag wàllub li nga xam ne moo dal liggéey dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo dal euh, xibaar yi. gannaaw nag ab euh, bataaxal boo xam ne génne woon nañ ko ñoom banqaas si takadar bi ñu xamee si Gambia Immigration Department di xam ne ne jamono ji nag li ñu nag nemmeeku mooy nag daal li nga xam ne moo di nag daal askan bi nga bu bëri askan bu bëree bëri ñu ngeen nag daal sàkku nag daal loolu ñu xamee si rek daal passeport ba daal ki nga xam ne moo yore kàddu gi si banqaas si takadar bi ñu xamee si Gambia Immigration Department si xana waxtaan ak télévision bu mag bi ñu xamee si QTV daal di xam ne ne loolu nag daal tax na daal ñu jël nag jël seen nag daal ay matuwaay pour rek daal yombalal askan wi ñu mun a jotee seeni li nga xam ne moo di kayit yooyu ñu xamee si passeport dinañ ko yaatal si biir euh, xibaar yi niki démba si rek daal àllarba gi ministry of information di banxaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne fa ci wàllub nag daal xibaar nekk si ron li nga xam ne moo di nguur gi amal nañ seen ab daje boo xam ne daje nañ ko ak way taskatu xibaar yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko nag daal miin a defee bi yoon nag daal dalal nañ ci ki nga xam ne moo yore ndombal tànk bi ñu xamee si manager director si kër gi ñu xamee si Gambia Ports Authority mu nag daal di indi ay nag leeral si rek daal fi nga xam ne fa lañ toll seen ay liggéey ñoom ñi nga xam ne ñoo di Gambia Ports Authority dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yii ak yeneen gannaaw bàkk bi ñu daal di yaatal alxames la fukki fan yi ak ñeneent si weeru novembre atuma 2024 di atu ñaari junne yi ñaar fukkee ak ñeneent ñu dalal leen seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal uh, xibaar yi kuréel gi nga xamee si Catholic Relief uh, Service ñoom na daal dinañ def ab jëf ju rafet jël nag ay uh, jumtuwaay jébbal ko kër gi nga xam ne moom lañ xamee si National Food Laboratory Service ndimbal gi nag ñu ngi ko jébbal kër gi keroog li nga xam ne moo daal talaata pour daal yombalal leen seen nag wàllub li nga xam ne moo liggéey saytu nag li nga xam ne moo ay ci wàllu nag daal lekk yi nga xam ne askan wi dinañ koy faral di jëfandikoo fexe lekk yi nag ñu di ko saytu nga xam ne daal du indil askan wi benn jafe seen wàllub li nga xam ne moo li wàllub li nga xam ne moo daal wérgu yaram li nga xam ne moo di nag daal saytu lekk yi nga xam ne moom la askan wi di da jëfandikoo laata askan wi di ko jëfandikoo ab nag mbir la mu am solo la nag bi nga xam ne nemmeeku nañu ay jàngoro wala ay feebar yu bari ñaareel li ko faral di sabab nag mooy nag daal li nga xam ne moom la askan wi di def si seen ay biir wala daal li askan wi nag di nag daal di lekk surtout daal réew yi nga xam ne daal seen nag daal doole demee wutoon wala réew yi nga xam ne dafa bari lool ay nag nit ñi nga xam ne daal nit yu nag ndóol leen comme ni nga xam ne noonu la réewu Gambie daal di mel. ba daal waral na euh, kër gi ñu xamee si Food Safety and Quality Authority. di kër gi nga xam ne ñooy saytu lépp loo xam ne fa ci wàllub nag daal ñam fexe nag saytu ko bu baax a baax laata nag askan wi di kon nag daal di jëfandikoo ñoom nag yàgg nañu amal seen nag ab taxawaay pour daal fexe lépp loo xam ne askan wi ngi koy jëfandikoo si rek wàllub nag lekk wala wàllub dund mu doon nag ab mbir nag mu am solo moo xam ne daal euh, duñ du leen du leen indil benn gàllankoor ba tana si rek daal eh, jumtuwaay yi nga xam daal jébal nañ leen ko ñi leen ko jébal moo di Catholic Relief Service ñoom Food Safety and Quality Authority ki nga xam ne moo jiite kër googu Momodou eh, Ba moom lañ dénk ndombal tànk bi ñu xamee si Director General Food Safety and Quality Authority di FSQA moom nag wax na ne jumtuwaay yi nga xam ne moom la leen Catholic Relief Service di CRS daal di jébal ay nag jumtuwaay yu ama am solo la yoo xam ne daf leen di yombalal seen nag wàllu liggéey ñu gën nag di mun a saytu lekk wala nag euh, ñam yi nga xam ne askan dinañ koy faral di nag daal di jëfandikoo wax ne daal jumtuwaay daal jumtuwaay yu leen di dimbaleel la si seen wàllu li nga xam ne moo la liggéey ki ñu xamee si Touré Amoulaye nga xam ne moom mooy contre représentative wala moom moo toogal euh, kuréel googu ñu xamee si Catholic Relief Service moo leen toogal fii si biir réew mi moom nag wax na ne euh, kuréel gi nga xam ne moo di Catholic Relief Service nag daal ñoom. daanaka nag daal pare nañ saa yu nekk nag daal di nag taxawu li nga xam ne moo daal nguur gi jàppale leen ñoom nguur gi nag daal fépp foo xam ne daal nguur gi nag daal dañ fa télé ñoom pare nañ nag pour rek daal di si taxaw li nga xam ne moo daal nguur gi surtout nag daal lu aju nag si rek wàllub aar askan wi sàmm askan wi seen wàllub nag wér-gu-yaram daal mbir la moo xam ne lu leen itteel te nag dinañ wéyandi ji si nag taxawu jàppale si li nga xam ne moo di nguur gi Beatrice Adja Kabore nga xam ne moom lañ dénk ko nambal tànk bi ñu xamee si technical advisor si euh, kuréel googu ñu xamee si Catholic Relief Service di CRS euh, moom nag euh, daal dina wane daal daanaka li nag ab mbir la goo xam ne sax daal yàgg nañ ko nag daal di amal mu nag daal di wane nag ab mbir la moo xam ne sax daal yemale wuñ ko fii sek si biir réew li nga xam ne moo di Gàmbi gannaaw bi nga xam ne wax na réew yi nga xam ne ñoo bokk si rek mbootaay Afrique euh, sow jant bi ñu xamee si ECOWAS toll si fukk ak juróomi li nga xam ne moo di réew ndimbal yu mel ni nag daal ñu ngi ko fay nag daal di amal gannaaw bi nga xam ne ab nag mbir moo xam ne dañ ci nag lëkkaloo ak mbootaay àddina si ñu xamee si WHO di World Health euh, Organisation ak tamit nag daal mbootaay bi si mel ni nag daal ECOWAS ak daal gis bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom Malang N Fofana moom mooy executive director bu National Nutrition Agency euh, moom nag euh, daal dina war daal euh, jumtuwaay yi nga xam ne moom nag lañ jébbal Food Safety and Quality Authority ay jumtuwaay nag yu amaam solo la yoo xam ne dafa nag daal yombal Food Safety and Quality Authority seen wàllu liggéey ñu nag mun di saytu ñam wala lekk yi nga xam ne askan bi nañ koy faral di jëfandikoo fexe nag ñam yooyu mu doon nag ñam yu mucc ayib yoo xam ne daal du indil benn gàllankoor askan wi nga xam ne ñoo koy nag daal di jëfandikoo. kuréel googu ñu xamee si CRS nga xam ne ñoom ñoo def jëf ju rafet ji jël ay jumtuwaay jébbal ko Food Safety and Quality Authority ñoom nag daal ab kuréel la goo xam ne daal yàgg nañu nag daal def ay nag yëngu-yëngu yoo xam ne dañoo taxaw askanu fii si biir li nga xam ne eh, moo di daal eh, Gambie ba te daal jamono ji nag daanaka seen nag jubluwaay yëpp nag daal mooy taxaw askan wi seen wàllu li nga xam ne eh, moo daal wér gu yaram bokk na si nag daal jàngoro yi nga xam ne daal dañ nañ ci day faral di gën a dugal seen nag loxo bokk na si jàngoro ji si mel ni HIV HIV and AIDS malaria ak tamit yeneen si li nga xam ne moo di ay jàngoro yoo xam ne yuy faral di sonal nag askan wi leneen loo xam tamit dinañ si faral di si dugal seen nag loxo mu di rek wàllub agriculture maanaam wàllub mbéy lépp loo xam ne jëm kanam la euh, nag la mun a indil askan si rek wàllub mbéy loolu it nag ñoom Catholic Relief Service wala CRS nag dañ si nag taxaw li nga xam ne moo di nguur gi ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar gannaaw ab press release mu di ab bataaxal boo xam ne fisaloon nañ ko ñoom banqaas si takkader bi ñu xam ne si Gambia Immigration Department Euh, ñoom nag ñu xamee leen si GID euh, nag ñoom dañ génne woon a bataaxal di nag xamle ne jamono ji nag dañ nak nemmeeku ne daal am na nag daal askan wi ñu baree bari ñoo xam ne daal ñu ngi nag daal di dem si seen ay makkaan fa nag sàkku xeetu kayit bi ñu xamee si rek daal passeport nag daal jamono ji ni ko askan wi sàkkoo eh, nag daanaka lim bi sax dafa nag daal di jéggi li nga xam ne moo daal dayo loolu nag waral ki nga xam ne moo di public relations officer maanaam ki yore kaddu gi wala ki nag kuy lamiñ ki nga xam ne moo yore lamiñu banqaas si takkadeer boobu nag moom nag wax na loolu sax moo waral ñoom nag ñu jël seen ay matuwaay fexe nag daal gën a defaraat si i ab toogaay fexe nag daal li nga xam ne moo di soxlay askan wi ñu di bi dina jotee si li nga xam ne moo di seen kayit yooyu nga xam ne ñu koy càkku moo di passeport na daal si rek anam yi nga xam ne la daal di muccee li nga xam ne eh, moo di daal ayib ñoom ñi nga xam ne ñoo yore kilifteefu Gambia Immigration Department ñoom nag xam nañ daal li ñu nag naal njortane moo waral nag daal jamono ji ñiy sàkku passeport nag daal lim bi nag daal di yokku lool mooy nag daal Euh, gannaaw bi nga xamee ne réew yu réew yu bëri si rek réew li nga xam ne moo daal tugal yi dañ nag daal di woyofal lool nag daal li nga xam ne euh, moo di nag daal li li nga xam ne daal moom lañ daan nag laaj pour daal nit war a dem si seen li nga xam ne moo di ay réew daanaka nag yu bëree bëri na daal dañ ci dañ ci nag dañ leen dañ ci nag daal di amal ab nag woyofal war a nag ñu bëri si ay doomi réewu Gambie nag daal ñuy profité wala di porox ndollu di nag daal sàkku xeetu këyit yi nga xamee si passeport mun a dem si li nga xam ne moo daal réew li nga xam ne moo daal tugal yu ñenn si ñoom seen nag bugg a bugg mooy dem si réew yooyu yokki seen i xam-xam ñeneen nag daal seeni i bugg mooy nag dem fa daal di fa nag daal li nga xam ne moo daal seen i nag daal ab nag daal euh, doole bu ñu sukkandekoo seen i li nga xam ne moo di kàddu ñoom ñi yore banqaase takkate bi nga xam ne si Gambia Immigration Department Pa Ousmane Mané moom nag mooy operations command si banxaasi takkader bi ñu xamee si Gambia immigration department nombal tànk boobu lañ ko dénk di operations command moom nag wax na ne nag daal daanaka li nga xam ne moo di nag lim gu bari ki nga xam ne daal ñooy sàkku jamono ji xeetu kayit gi ñu xamee si passeport moo waral sax daal jamono ji nag daal daanaka ñu nag yokk seen ab diirub liggéey gannaaw bi nga xamee ne daal jamono ji nag dinañuy faral eh, di nag daal eh, tàmbali daanaka si suba si ba sax daal juróom-ñetti waxtu yi si ngoon lañ dee faral dinak nag daal dakkal seen nag liggéey eh, bor bu set mu nag daal di wax ne gannaaw bi nga xam ne bu njëkk ba daanaka ñeneenti waxtu yi lañ daan wàcca waaye fi mu nekk daal daanaka juróom-ñetti waxtu yi si ngoon lañ dee faral nag di nag dakkal seen nag liggéey maanaam di wàcca li waral mooy nag nemmeeku nañ daal euh, sàkku bi nga xam ne moom la askan wi di sàkku xeetu kër yi nga si passeport ñi koy sàkko jamono ji lim bi dafa nag daal di jéggi li nga xam ne moo di daal dayoo mu nag waral ñu nag jël seen nag daal ay nag daal matuwaay pour daal yombalal citizen si maanaam doom yi waa réew mi ñu mën a jotee si kayit yooyu nag si rek loo xam ne daal duñ si am benn nag jafe-jafe piaro euh, wala kii rek kàddu gi foofu si banque setekal bi ñu xamee si Euh, Gambia Immigration Department Siman Lo noonu lay wuyoo moom nag euh, daal dina euh, wax ne daal daanaka nag daal ni nga xam ne nu la nit mun a amee li nga xam ne moo di passeport faaw nag nga teewal ay nag këyit nag yu wér nag yuy wane nag daal yow doomi waa réew mi nga te tamit nag war ngaa tamit nag daal fay koppar nag gu toll si rek daal ñetti junni ak juróom fukki dalasi te nag koppar gu yaa ngi ko war a fayee si banque bi ñu xamee si rek daal Ecobank ne daal gannaaw bi nga xamee nga loolu dinañ la nag daal di eh, daal di jàppal ab bés boo xam ne dinañ la interview maanaam daal eh, jàppal bés boo xam ne di nga ñëw laaj ak tontu nag war a dox sa diggante ak ñi nga xam ne ñoo lay war a daal di jox li nga xam ne moo di eh, passeport mu ne daal buñ la interviewé ba noppi tamit nag daal dina am tamit nag daal beneen yoon boo xam tamit di nga ñëw ñu nag daal di saytuwaat sa ay kayit nataal la ak daal lépp loo xam ne daal aju na si eh, daal di settantal laata sax daal ñu di lay eh, jébbal li nga xam ne moo di daal sa nag daal eh, passeport mu nag daal di tamit nag daal di nettali wala sax daal xam ne daal am na daal ñaari nag daal li nga xam ne moo di xeetu li nga xam ne moo di passeport boo xam ne ñoom Gambia Immigration Department moom lañ dee joxe am na daal boo xam ne ñu ngi ko nag daal di duppee biometric passeport Euh, am na beneen boo xam ne machine readable passport na la te nag wax na ne bi nga xam ne moom lañ xame si biométrique boobu nag faaw nag yow nga teew ak sa jëma euh, mun a jotee si li nga xam ne moo di xeetu passeport bi ñu xamee si rek biométrique passeport mu ne rek bi nga xam ne moom lañ xamee si euh, machine readable passport mu ne boobu nag daal ajowut sax nga nga teew yow mi nga xam ne yaa koy sàkku mu lii nag dañ ko jagleel ñi nga xam ne daal nekkuñ si biir réew mi nga xam ne daal ay doomi waa réew mi lañ waaye nag nekkuñ si biir réew mi nag bugga nag passeport wala bugga beesalaat seen passeport ñooñu nag xeetu passeport nga xam ne moom nag lañ leen di war a jox moom xam xamee si machine readable passeport bi nga xam ne boobu du sa ajo yow mi soxla passeport bi nag nga nag daal di euh, teew mu nag daal di wax daal ñaari xeetu passeport yi nag lañ am bu ñu sukkandekoo si euh, euh, kaddu yi moom ki yore kaddu gi si banxaas si takkatere bi ñu xamee si Gambia Immigration Euh, département xam leen tamit nag daal naam bu fekkee ne yaa ngi ut passeport faaw tamit nga am xeetu kër yi ñu xamee si ID card mu ne daal nemmeeku nañ ne jamono ji dafa am nag daal ab daal euh, taxaw taxaw ab nag daal dakal bi nga xam ne dakkalagum nañ ko di nag joxeegum li nga xam ne moo di daal ID card nag mu nekk li ko waral mooy nag daal contrat bi nga xam ne doxoon na si diggante nguur gi ñi nga xam ne ñu doon defar nag ID card yi li nga xam ne moo di contrat bu mu defar nag daal di euh, jeex tax na ba léegi nag beesalaguñ ko. waaye nag terewut ñi nga xam ne amuñ li nga xam ne moo di ay ID card te nag bugg a passeport euh, faaw tamit nag ñu deewal teewal li nga xam ne moo di ay këyit nag yu wér laata nag ñi mun a jotee si li nga xam ne moo di xeetu këyit yi ñu xamee si rek passeport bu ñu sukkandikoo euh, si rak li nga xam ne euh, moo daal kaddu yi moom ki nga xam ne moo yore kaddu gi si banqaas yi takkadeer bi ñu xamee si Gambia Immigration Department. ñu wéyandi si beneen xibaar. ni ki démb si li nga xam ne moo di daal àllarba gi ministry of information di banqaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne fa ci wàllub nag daal xibaar nekk si rek ron li nga xam ne moo di nguur gi weer wu nekk nag dinañu amal loolu ñu xamal si press conference maanaam daje ak way taskatu li nga xam ne moo di xibaar yi niki démb seeg àllarba nag amal nañ ko bi yoon nag daal dalal nañ uh, ki nga xam ne uh, moo di nag daal managing director uh, moo nambal tànk boobu lañ ko dénk si banqaas bi ñu xamee si Gambia Ports Authority moom nag ñu nag daal di ko nag. Euh, olu si li nga xam ne moo di press conference boobu nga xam ne dañ doon daje ak way taskatu li nga xam ne moo daal xibaar yi li nga xam ne moo di nag daal euh, press conference yi nga xam ne moom lañ di amal nag daal weer wu nekk ab nag mbir la moo xam ne nguur gi dañ ko dee amal nag weer wu nekk pour daal xamal li nga xam ne moo di askan wi nag daal fan la nguur gi toll seen nag wàllu bi nga xam ne moo di liggéey maanaam euh, soxla yi nga xam ne daal nguur gi war nañ koo taxaw askan wi fan lañ ci nag daal di toll daanaka dinay waral weer wu nekk nag ñu daj ak wetas ku daal daal di xamle loolu Euh, bi yoon nag dañ nag dalal ki nga xam ne moo di managing director bu Gambia Ports Authority euh, mom nag di rek MD Jobate moom nag si rek daje bi nga xam ne daje nag ak way taskatu xibaar yi daal dina nag daal indi ay leeral si daal liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy amal si li nga xam ne moo di Gambia Ports Authority jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel mu nag daal di wane daal jamono ji nag bokk na si nag li nga xam ne moom lañ gën a soxla mooy nag daal gaa gën a li nga xam ne moo di port bi fexe tamit ay am ju ay am ju ay am am ay jumtuwaay yoo xam ne Euh, a jumtuwaay yu méngoo ak jamono yoo xam dinañ ko nag mën a jëfandikoo si seen bérébu li nga xam ne moo di daal liggéeyukaay bu gannaaw bi nga xam ne wax na ne port bi nag port bu nag bu yàgg la xam ne yàgg naa liggéeyal réew mi yàgg naa indil réew mi li nga xam ne moo di koom jot nañu nag yaatal ko tamit euh, fexe tamit di jëfandikoo jumtuwaay nag yu méngoo ak li nga xam ne moo daal eh, jamono moom eh, MD bu managing director bu Gambia Ports Authority mu nag daal di woon daanaka fi mu nekk ni port bi nag dafa xat lool bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddoom waaye nag wax na ne am na nag am nanguto boo xam ne bu yàggul nag daal dox na si rek daal diggante nguur geeg Africa Development Bank nga xam ne sax daal li nga xam ne moo di daal Africa Development Bank nag daal jébbale nañ war a sax war nañoo jébbale lu toll si rek ñaar fukki million si koppari dollars eh, boo xam ne daanaka Euh, dañ ko nag daal jébbale pour daal ñu ngi ko jébbale si weeru décembre atum 2022 pour daal ñu nag yaatal li nga xam ne moo di daal euh, port boobu ñu xam ne si nekk nekk fa si diwaanu euh, li nga xam ne moo di Banjul su ko defee nag ñu mu nag nekk port boo xam ne dina daal di mun di dalal wala ay gaal yu bëree bëri dinañ fa nag daal mun di teer su ko defee nag loolu dafa nag yokk nag koomi réew mi dina yokk tamit li nga xam ne moo di nag daal ay nag daal xëy si li nga xam ne tamit moo di nag daal ndaje bi nga xam ne daal nguur gi ñu ngi ko doon daje ak way taskatu xibaar yi si ndaje moomu taskatu xibaar daal profité nañ nag laaj eh, docteur Ismaïla Cissé ministre of information di jëwri ñi nga xam ne moom lañ loo xam ne si wàllum nag daal xibaar eh, laaj ko nag lu aju si rek wàllum nangu toogoo xam ne dox na si diggante réewu Gambie ak réewum li nga xam ne moo di Spain eh, nga xam ne ab nangu toog goo xam ne daal Gambia dina nag daal yebal ay ndawam foofu si réewum Spain nag daal ñu nag daani fa li nga xam ne moo di seen nag daal doole moom nag euh, di docteur Ismaila Cissé nag wax na ne daal loolu euh, ab nag euh, nangutoo la boo xam ne bu ñu nag setantal laata sax daal ñu see nag amal nag ab nangutoo te nag wax na ne daanaka nag daal gis nañ ne tamit nag daal am na doomi réewu Gambie yu bari yoo xam ne mbir mi itteel na leen loolu sax mo waral nag ñoom guur gi nag daal daanaka ñoom nag mbir mi sax daal Euh, ñoo koy saytulu seeni boppa bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di kàddoom leneen loo xam ne taskati xibaar yi nag laaj nañ ko ko moom docteur Ismaila se lu aju si po tukkib nemmeeku bi nga xam ne njiitu réew mi nag war na koo tàmbali si ay fan yu niw eh, yi ñëw eh, mu ñu xamee ko si Midi People Store moom docteur Ismaila Cissé nag wax na ne ab nag tukkib nemmeeku la bu am solo la boo xam ne eh, njiiti réew daal at mu nekk dinaa wër réew mi gannaaw bi nga xamee ne constitution bi di ndeyu sartay réew mi nag moo ko kon nag daal di sant at mu dina wër réew mi nag daal dem nag waxtaan ak li nga xam ne moo di askan wi eh, xam soxlay askan wi askan wi tamit discours seen ay soxla moom ministre of information docteur Ismail eh, Cissé mu nag daal di continue nag di nag wax daje bi nga xam ne dañ koy faral di ko amal ab ko way taskati xibaar dañ koy amal pour daal di xamal euh, askan wi nag daal fa la nguur gi euh, toll nag si seen li nga xam ne moo di ay soxla ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar njiit réew mi président Adama Barrow si ay fan yu néew ni ki rek lund bi nga xam ne moom la ñu digmal dina war a tombale loolu ñu xamee si Meet the People Store maanaam dina ko wër réew mi comme ni nga xam noonu la ko ko constitution mu di ndeyu sartay réew mi nag santeen mu war ko amal at weer at mu nekk bi yoon nag wala atum ren war na koo tàmbali loon di fukki fan ak juróom ñetta si weeru novembre ba tey nag ki ñu xamee si Ami Bojang si Soxo moom mooy director of press and public relations si office of the president moom nag wax na ne li nga xam ne moo di tukkib nemmeeku bi nga xam ne ñi ci réew mi war na ko tàmbali lundi si biir réew mi fi mooy njëkk a dem mooy suy suufi North Bank region te nag daal daanaka atum ren uh, tukkib nemmeeku bi nag li nga xam ne moo di thème bi moo di peace and development maanaam jàmm ak daal yokkute. njiiti réew mi président Adama Barrow euh, wala njiiti réew mi li nga xam ne moo di meet people to maanaam wor réew mi ab mbir la moo xam ne nag daal euh, constitution bi rek ndeyu sartay réew mi nag moo ko nag daal di sas ni daal war na koo def at mu nekk wër réew mi dem nag nemmeeku askan wi xam soxla askan wi askan wi tamit diis ko seeni ay soxla ba tey nag ñu xamee si Ami Bojang Sissoko yore no tànk bi ñu xamee si director of press and public relations war daal lii nag ab tukki nemmeeku la bu am solo la boo xam ne constitution wala ndey sartay réew mi moo ko nag sas ki nga xam ne moo di daal njiiti réew mi war koo def dem nag nemmeeku askan wi xam seen soxla tamit so askan wi tamit dis ko seen i li nga xam ne eh, moo di daal seen i nag daal soxla mu wax tamit askan wi eh, nag daal yan nag eh, yokkute nag la war a defaral li nga xam ne. Euh, moo di daal askan wi moom ki nga xam ne moo di daal euh, njiiti réew mi nag daal xam nañ daal nit ki nag si rek lundi bi nag la moo nag daal la tàmbali nag mbir mi euh, foofu si suufi North Bank Region te nag daal xayma nañ ne daal dina am lu war a toll ñaar fukki ay meetings di ay daje yoo xam ne dina ko nag daal di amal te tamit dina am lu toll si rek ñaar fukk ak juróom ay béréb yoo xam ne dina fa dem nemmeeku li nga xam ne moo daal béréb yooyu noonu wax nañu tamit moom aussi rek biir li nga xam ne moo daal tukkim nemeeku suñu sukkandikoo ba léegi si Ami Bojang si soxo mu nag daal di wan daal li moo nag daal di sàkku nag mooy nag daal mu ngi sàkku njiiti réew ñi nga xam ne ñoom lay fekk ji di sir ak ay métit si ay ndaje ngelawaay képp koo xam ne yaa ngi fay yëkkati kàddu waxal li nga xam ne mooy soxlay li nga xam ne moo di askan su ko defee nguur gi xam seen sax soxla xam daal naka la ñuy fajee seen i nag daal soxla yooyu noonu bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom eh, moom ki nga xam ne moo di njiiti réew mi xam nañ ne tamit si rek biir tukkib nemeeku bi dina tamit nag daal seeti ji ay nag eh, béréb yu baree bari bokk na ci ay nag eh, bérébu li nga xam ne moo di bayukaay dina tamit dem nag nemmeeku ji ay tool dina tamit nemmeeku ji euh, euh, euh, li nga xam ne moo di daal li nga xam ne moo di daal mbirub li nga xam ne moo ay tabax yoo xam ne daal tabaxu jàngukaay la dina tamit nag nemmeeku ji ay béréb yoo xam ne bérébu nag daal fajukaay la yoo xam ne dina ko dem nag daal di nag daal di nemmeeku ji moom ki nga xam ne moo di njiitu réew bu Gambie di président Adama Barrow si xibaar gu mujj gi banxaas bi ñu xamee si Gambia Revenue Authority di banxaas bi nga xam ne ñooy feeku tax wala lempo si biir uh, réew mi daal dinañ nag daal amal seet nag ñetteelu ndaje bi nga xam ne moom nañ duppee tax seminar bii nag yoon ñu dajale si lu toll si rek ñeneen fukki li nga xam ne moo di ay soxna yoo xam ne ñu ngi jugee ko si bànqaas bi nga xam ne si di Gambia Women's Chamber of Commerce euh, te nag dañ leen dajale woon waxtaan ak ñoom li nga xam ne moo aju si wàllub euh, nag daal euh, taxe maanaam wàllub li nga xam ne moo di rek lempo ñi nga xam ne ñooy yëngu si rek wàllub yaxantu naka lañ nag daal di war a nag daal di fayee seen ay taxe wala seen nag li nga xam ne moo di lempo ñaari fanu nag ndaje nag tàggatu yi nag dajale nañ ci nag li nga xam ne moo di soxna yi xamal leen njëriñu fayam taxe di rek fayam li nga xam ne moo di rek lempo surtout ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngu si wàllu yaxantu Beatrice Mbodj moom mooy chief executive officer bu Gambia Women's Chamber of Commerce moom nag wane daal mbégte ak kontaante la am jëmale ko si Gambia Revenue Authority si nag daal euh, ndaje yu mel yi nga xam ne dinañ koy faral di ko jagleel soxna daal lii lu ama am solo te nag daal Gambia Women ca bërëb commence nag bëgg nañ kontaan nañ ci li nga xam ne moo di daal euh, jëf ji Essa Diallo moom mooy Gambia's deputy moom mooy GRA deputy commissioner general moom mooy ñaareelu kilifa si rek euh, kër googu ñu xam si GRA wax daal banqaas bi nga xam ne moom xam xamee si jiyaar yi nag daal ñoom daanaka nag pare nañ pour daal ànd ak seeni ay àndandoor nag daal gën a yee askan wi surtout nag ñi nga xam ne ñoo yëngu si rek wàllu yaxantu daal li nga xam ne mooy njëri yu ñu fayam tax yi rek fayam li nga xam ne moo di lempo Alaaji Kee Mbay moom mooy commission of customs and exercise sàkku na si rek Gambie ci askanu réew mi ngelawaay nañ nag jàppale jiyaar yi eh, yombala leen seen nag daal ab liggéey di nag fay seen i tax wala daal fay li nga xam ne moo di seen nag lempo yëkkati na ay kàddu ndinkaane tamit jëmale ko si ñi nga xam ne ñoo teewe woon ñaari fanu ndaje yi nag daal xamal na leen ngelawaay nañ nag daal jëfandikoo nag eh, xam-xam yi nga xam ne moom nag lañ leen di sol si li nga xam ne moo di ñaari fanu nag ndajee googu Gambie nag ab réew la joo xam daal mu ngi sukkandiku si rek wàllub li nga xam ne moo di daal taxe maanaam wàllub nag lempo nag daal mooy nag doxal mbirub li nga xam ne moo di daal koomam loolu daal euh, euh, waral na ñi nga xam ne ñoo ngànk banxaas boobu nag di Gambie Revenue Authority autorité saa yu nekk nag ñu ngi sa ñaax askan wi nag ñuy fay seen i tax fay seen i l'impôt su ko defee nguur di a jëfandikoo koppar googu nag daal dugal ko si rek lépp loo xam ne lii nag njëm kanami li nga xam ne euh, moo daal réew mi la kuréel gi ñu xamee si di Gambia Women's Chamber of Commerce ab kuréel la goo ne ay soxna la ëmba yoo xam ne dañoo yëngu si rek wàllub li nga xam ne eh, moo di daal eh, yaxantu eh, nga xam ne daal daanaka ñoom ñi nga xam ne ñoo si nag daal bokk nag daal daanaka lépp loo xam ne dafa dafa soxal mbirub nag yaxantu nag daal moo leen nag daal di tax ñoom ñi nga xam ne ñoo bootu si li nga xam ne moo di banqaas boobu ñu xamee si Gambia Women's Chamber of Commerce mu di GWCC